donc c' normal su nekkee à 7 à partir de 16 heures kër gi sedd na ñu jóg dem voté ji donc. Euh, euh, daan nañu jaaxal sax nit ñi ci élection d'habitude jeunesse bi su nekkee koor amul dañuy dañuy añ ba pare doog dem vote ji mm-hmm. parce que dimanche bi dañuy noppaleku d'habitude samedi bi dañ daan génn dem dem defi leneen li ñuy def après ñu noppaleku donc je pense que taux de participation mën na élevé wu d'ici mm-hmm. d'ici 18 heures mm-hmm. alors à rappeler ni tout également di mën am yeneen plateau ñu mën leen toppal li nga xamante ni moom moo di actualité tombé juste ak li nga xamante ni moom moo di peut-être résultat yi nga xamante ni dina bokk ci résultat yi njëkk wàcc lu ñu mel nag lépp fii lay xewee ci Sénégal 7 TV ñu nekk nag ci suñu dernier tour de table euh, grand le mot de la fin vraiment ça a été un plaisir de partager ce pour moi de venir tout le temps à Sénégal 7 c'est un plaisir parce que réel plaisir et puis jàkkaarloog sama sama yaay booy sama bàjjen booy sama xarit sama sëriñ ak sama sama avocat sama juriste moom mooy juste bu xew dafa xew nag quoi. non damay bañ nag damay bañ mu damay bañ mu toll mu dem toll ci ni comme gars yi après du du jóg quoi. non kii du def loolu <laughs> kii du def loolu. Mm. donc euh, bon euh, xam nga ñoom suñu plateau yi il faut ñu xaw yokk bës bi tuuti balaa ñuy invité borom kàngam yi. bëggoon naa nag amaale sa gis-gis sax ci tàggatoo ba tey ci. blanc bi nga xamante ni tey pratiquement candidat yi de la paix oui moom lañu moom lañu signe de la paix c'est-à-dire dafa am dafa am lu nit ñi bëggul ci après élection amuñu culture boobu mooy voté ba pare coow di am mooy signe de la paix ñoom ñëpp def nañ weex mooy wane ni ñoom ñëpp bëgg nañ jàmm mooy lii nga xam ne moo ci nekk mais maintenant nag appel bi ñuy lancé mooy ak ku mu mënti doon nañu fair play accepter les résultats des urnes important j'ai dit dama ne ak ku mu mënti doon ak ku mu mënti doon nañu accepter la décision des Sénégalais. mooy les résultats issus des urnes. su nekkee ñun ñoo ñàkk ñu xam ni ñoo ñàkk su nekkee ñeneen ñoo ñàkk ñu nangu ñi ñoom ñoo ñàkk. sa candidat nee na premier tour. xam nga kenn du dem ca làmb ja ne da ngay daanu <laughs> wala. kenn du dem ca làmb ja ne dangay daanu kenn bëgg-bëggam la wax. Mm-hmm. keneen wax bëgg-bëggam du dëgg mais la ca am solo. mooy su résultat yi génnee te du génn tey nañuy moytu di préfabriquer des résultat mën na taal réew ak camp bu mu mënti féete nag parce que gagné Médina du caagin yaa gagné Sénégal wala gagné gagné gagné euh, Médina Yoro Foulah du caagin yaa gagné Sénégal parce que nit ki day toog ci bureau de vote am gagné bureau de vote rek commencé jubilé ku ko ci def yaa ngi ci erreur élection présidentielle ce n'est pas une élection c'est une élection nationale nit ki mën na ñàkk dakaar gagné élection nit ki mën na ñàkk Ziguinchor gagné élection nit ki mën na gagné Dakar te du gagné élection donc naka acteurs yi nangu nangu ni résultat yi génn ci urne bi mooy résultat yu valable parce que ku ci ne ci ñoom am nañ ay représentants départementaux waaw wala déet mm-hmm. résultat yi dinañ ko yor ñoom balaa cour d'appel di joxe résultat yi ñoom dinañ def cumul bi yëpp à leur niveau au niveau de leur quartier général donc résultat yooyu ñu ñaw nañu nangu ni loolooy résultat yi parce que seen représentant yi dans leur bureau de vote ñi am représentant nag laay waxal ñi am représentant moom li ñu leen dal ñoom la mais ñi nga xam ni seen représentant dans leur bureau de vote yi indi nañ seen procès-verbaux yi ah mu conforme ak procès-verbaux yi ñu signé ci biir bureau yi nangu ko signé ko moo tax ma ne leen bu ñu signé avant nañu ñuy dépouiller bépp représentant de parti bu nekk ci biir bureau de vote bul signer procès verbal balaa tant que député ñu ba pare soo apposé sa signature avant la ñu def ca procès verbal ba yaaw yow yaa ko def. sa bopp da lay lié. donc procès verbal on le signe après dépouillement et remplissage ba ñëpp d'accord te bu leen nangu kenn di leen rempliral seen procès verbaux yi rempliral leen ko seen bopp yow mi représenté parti bi ci biir centre de vote ba. parce que je parle en connaissance de cause je fi jàngalekat laa woon. Mhm. nekk naa fi président de bureau nekk naa fi représentant de parti nekk naa lu ne. yow mii représenté parti bi nañ la jox sa procès verbal nga rempliral ko sa bopp nga xam ni soo defee erreur yow yaa def erreur bi mais soo ko joxee nit mu rempliral la ko lam ca def da lay te su boobaa mooy andi problème yi am après la programmation des résultats. Et en Donc, le procès verbal fait foi jusqu'à inscription de faux. leer na loolu daal laa bëggoon wax. d'accord ça a été un plaisir. comme wow. toujours voilà également tey ñoo am mbégte partagé ce plateau ak yow wax yombul rawatina ci weeru koor bi mais quand même accompagné nga ñu ci bu baax a baax naw loolu également ci sa xel mu sell macha allah bi nga am ak ci questions yu pertinentes yi nga xamante ni nga ko posé fii. ci plateau bi macha allah. merci merci Penda c'est toujours un plaisir. Khalifa Sall nag gis naa ni bu mu amalee wotam ba noppi dem na ziyaare ji waajuram ci cimetière bi d'accord euh, effectivement lu lu am solo la lu am solo dafay wane rek euh, cofeel bi mu am ci juróom comme beaucoup de beaucoup de personnes parce que loolu barke lay doon ci doom mm-hmm. euh, am mbégte partagé plateau bi effectivement ak yow euh, ak grand aadama aussi Euh, ak mon frère. Euh, Pape Amadou Pape Amadou. Mhm. Adama mu ngi koy tooñ tout mhm. ma ne ko lu lu lu néew li ma ko xamal. parce que CDS dafa dafa am solo. lu néew li ma ko xamal am na yoo xam ne moom pour nga gis ko si dana jafe lool. Mhm. xamuñu de. nit lëndëm na lool. waaye man pour ma gis pour ñu gis ko ci dana jafe. parce que daf ko daf ko wane. di ko ñaanal yàlla. xam-xam bi gën a gën a set gën a ñoŋ euh, mu ànd ak euh, sàmm sàmm sàmm goo xam ne suñu borom walla la koy sàmm suturaal la ko euh, defal la ci tawféex te barkeel lépp la nga xam ne da nga ko entreprendre ko ambition bi nga am wala bokk engagement bi nga jël pour rendre service à ton peuple nous en avons parlé yàlla na ko yàlla mottali euh, te euh, defal la ci ndam bu baax a baax Penda di la jaajëfal encore une fois di jaajëfal mbokk internet yi ñu doon suivre si Sénégal ak si diaspora bi mm-hmm. euh, di souhaiter le meilleur à celui que le que que que que, comme président la de la république moom xam na ko ba noppi mm-hmm. ñu ñoo nekk dans l'incertitude mm-hmm. parce que dañoo matadi xamuñu lépp donc ñu bàyyi ci xel bu baax et puis li nga xam ne moo war a doxee ci élection bi ñu doxal ko comme ni mu waree. Mhm. Euh, bu résultat génnee. Mhm. ñu doxal résultat yi ni mu war a doxee. Mhm. lii ci génn ñu génnee ko na mu war a génnee bu ko defee kiy gañee euh, ngañaayam bañ a am benn contestation. alors Abdou dama la ko fàtte woon rek tout à l'heure mais euh, Kaaw Boun Abdallah Dionne également bëgg naa ci am sa gis-gis on nous apprend que ni il est toujours malade et qu'il a mm. été évacué en France. Oui. depuis depuis le Maroc. depuis le Maroc Maroc lañ ko jëlee yóbbu France. Mm. donc ça veut dire que bu mu jógee Sénégal dem Maroc yàgg. ok parce que ba ba avant-hier bi ñu jotee communiqué bu jógee ci cellule de commune bi amoon nañu yaakaar que ni voilà tane na bu baax. ñaanal ko yàlla moo wér. c'est ça loolu lañ koy ñaanal yàlla parce que je crois il y a une semaine Sénégal s'est avait donné l'information que qu'il malade. Mhm. il est un candidat de la à la présidentielle à la présidentielle euh, bu fekkee nee na candidat la certainement am na ñoo xam ne am na ñu bëgg koo voter te gisuñu ko c'est de notre ñu wax leen ci lu mu nekk mhm. wax leen ci lu mu nekk loolu aussi c'est une occasion pour tout le peuple et ses concitoyens ses compatriotes ñu ñaanal ko mhm. mu am wér ak jàmm mhm. fa mu nekk également njiitu réew mi euh, daal di euh, joxe instruction yóbbu ko très rapidement moom aussi taxawaayam la def euh, ñu koy ñaanal yàlla mu wér ak jàmm am na lu ndaw luñ ko xamal lu mu def loo xam ne bu ko ko yàlla fayee dina doyal waaw mhm. kon yàlla na ko yàlla maintenant euh, dafa am lu ma dafa am ay résultat yu circulé euh, sur le net léegi ñu wax ko Ankara Turquie dafa am bénéfice bu ñu présenté Rose Wardini n'est pas candidate à l'élection présidentielle. su nekkee su nekkee lii ministère de l'intérieur moo ko def c'est parce que y problème les procès-verbaux qui sont là-bas. kii mhm. bi ñu bi ñu wane nii yàlla a Rose Wardini. Mhm. ça ça ne fait pas du sérieux. zéro dañu baare sax turam. su nekkee procès verbaux yii turu résoudre ni daf ci nekk ni toujours droit bi war nañu wax. parce que le conseil constitutionnel daf ko génne woon ci liste bi déjà loolu c'est pas possible. Rose n'est pas candidat donc lii est-ce que procès verbal bu valable la wala bu valable. on est sur les réseaux voilà y' a les manipulations. doo ci mën a doo c'est pour ça que ñun à notre niveau. nous préférons rester prudents. tout à fait ba heure bi nga xam ne si la ñu war a mën a jot résultat yi. nous avons des des des correspondants Euh, sur l'ensemble du territoire, dans mhm. certaines régions, dans certaines zones. ñoom bu boobaa ñoom en temps réel ils pourront nous donner les informations maintenant ñun li ñu nekk en mesure de donner en termes de résultats mhm. dinañ ko joxe peut-être mhm. mën ñu matale lépp mhm. mais d'autres confrères d'autres médias yoo xam ne ils travaillent en même temps que nous peut-être mën nañu compléter mais après la commission de départementale de recensement des votes aussi moom fera le la cour d'appel à son niveau Absolument. le conseil constitutionnel à son niveau tout c'est vrai que les résultats commencent à tomber dans la diaspora mais on peut pas se permettre tey jii di euh, lépp lu nga xamante ni ñu ngi koy jot euh, comme xibaar. Euh, hmm. pour ni ko Abdou waxee rek rester prudent pour ne pas verser wu ci li nga xamante ni moom moo di manipulation parce que moment bi dafa nekk moment wu manipulation xibaar yi dafay wëlee fu nekk et comme je dis également tout le temps jamono jii la moom Sénégal 18 millions d'habitants yëpp ay journalistes lañ. Hmm. en erreur euh, Amadou ça a été un plaisir yow it di la bàyyi nga tàggatoo le mot la fin. Ah, merci Penda je crois que man maa lay remercier par rapport à cette invitation comme j'ai l'habitude de le dire yow moom franchement da nekk euh, nit ku baax. nit koo xamante ne toujours li lay caractériser mooy sa enthousiasme donc euh, respect bi nga xamante ne ni ak. relation de fraternité bi ngay entretenir ak say invités donc mu nekk leen na loo xamante ne nii moom moo lay caractériser. donc ñu lay ñaanal yàlla aussi. Ah. Euh, nga dund ba sa métier bi li nga ci bëgg nga am ci lu kawe sa njort. di nuyu aussi le grand Adama Fall c' est la deuxième fois qu'on partage. daañu moom sama moom sama waay la quoi. <laughs> oui oui oui c' est que xam nga damay xam nga damay damay damay def toj-toj yu bari ci biir réew mi. <laughs> tout à fait tout à fait kon campagne non campagne jeex na fi mu ne nii kay je prépare ma reconversion euh, voilà pour l'avoir de... voilà et, et, et puis je prépare ma reconversion sincèrement je pense que je vais arrêter la politique le 2 le 2 avril ah, après Macky Sall ouais. ah et me concentrer sur sur activités professionnelles voilà sur mes activités professionnelles ku soxla nag ah, soo ma en tant que politique du ma ñëw. Mm. Ah, pourquoi xoolal muy taaw yi. soo ma woowee soo moo woowee tant que su fekkee ni président bi ci yéen la jógee nag. mu waaw mais xam nga xam nga l' activité politique. Mm-hmm. ak euh, l' accompagnement c' est c' est différent. Mm-hmm. Euh, dafay dem moment dans ta vie il faut penser à toi penser à ta famille penser à tes enfants. faire un sur soi c' important parce que politique day day jël temps yu bëri. Mm-hmm. et quand tu as de petits garçons ils ont vraiment besoin de papa et puis politique bi da nga fiy nekk. bon des far dafa ba far far baaxul far baaxul des fois doo ubbi bët doo gis lu bari. Mhm. même su nekkee ci opposition bi doo ubbi bët doo gis lu bari mhm. soo nekkee pouvoir doo ubbi bët doo gis mhm. lu bari. et gis naa ni ba ma toogee sànq ba léegi nekk à équidistance des choses bu moo dàq da ngay am liberté. c'est important. damay bëgg mel ni moom di am liberté. est-ce que c'est parce que nag li la gars yi di waxal nag grand pro Macky nga et yow Macky rek nga mën a nekkal. man Macky rek <laughs> laa mën a nekkal ngi dem nag xajatoo fenn. Macky dong laa mën a nekkal. mënu ma nekkal c'est-à-dire li ma li ma waaw moom dong a nekkal. tàggatoo woon nga fi ay ñëwaat ñëwaat kon boo tàggatoo waate dañuy xaar gis ko. non tàggat dama tàggoon tàggatoo ay dem ci dem ci ñeneen. mais arrêtez de faire de la politique là wax mm-hmm. c'est-à-dire toog ci plateau di wax di waay di di non nekkatuma ci équidistance des choses. d'accord Djily Mbaye. Euh, euh, macha allah bon may remercier may exploité ko. <laughs> may remercier aussi Abdou Abdou Khadre par rapport aussi témoignage pointu bi nga xam ne def na ko tout à l'heure moom aussi mu nekk nit ku baax nit mhm. koo xam ne ni aussi à travers une discussion boo xam ne amoon naa ko ak moom mhm. à la suite d'une émission donc am na lu bari loo xam ne aussi jàng naa ko ci moom donc di leen jaajëfal waa Sénégal 7 mhm. donc par rapport à ces initiatives yi nga xam ne ni yéen a ngi koy jël ces brillantes initiatives pour en tout cas éclairer la lanterne de l'opinion par rapport aux questions du Sénégal mais aussi may def un appel j'en appelle à la prise à une prise de conscience collective par rapport ak li nga xam ne ni moom moo war a am probablement tout à l'heure donc ñu gën a garder la sérénité parce que élection moom comme ni ñu ko waxee rek euh, am à partir du moment où le code électoral a déjà décliné benn processus boo xamante ne nii résultat yi fa la war a jaar bu àgg ci conseil constitutionnel mm-hmm. donc ñi nga xam ne ñoom ñooy les responsables de parti nekk candidat donc war nanoo mën a gën a am benn posture très responsable def de telle sorte que ba am benn comportement boo xamante ne ni mën na induire en tout cas seen militants yi en erreur wala mu désorienter en tout cas li nga xam ne moom mooy opinion bi donc à partir du moment am na ay commission yoo xam ne dinañ def benn travail en amont yóbbu ko cour d'appel ba war a dem conseil constitutionnel donc nañ serein donc ñu bañ li lépp loo xam ne ni processus bi depuis commencement bi ba léegi ñu ngi ko def dans la sérénité dans la paix ki nga xamante ne tey aux yeux des Sénégalais pour en tout cas diriger les destinées de ce pays-là ñu jox ko en tout cas mu mu mu mu doxal. Mhm. donc may remercier aussi euh, tonton Omar donc depuis les États-Unis donc di ko wax ne que aussi par rapport que suivi bi nga xam ne mu ngi koy am ci ñun par rapport à son accompagnement à sa générosité en tout cas ñu ngi koy remercier bu baax. di di nuyu aussi le président Ibrahima Mbaye le président de l' association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. mu nekk aussi un un boo xamante ne nii très providentiel boo xam ne mi ngi abattre un travail très substantiel dans ce secteur là merci. également à vous yéen ñi nga xamante ni sa su ne sa a safoo ay programme di remercier également la régie Seydina Ismaïla Touti. ak it nos reporters un peu partout ci euh, territoire bi muy euh, Abdou Aziz Guèye mi nga xamante ni euh, moom moo ñu teewaloon foofee ca sa Parcelles Assainies doon teewee li nga xamante ni moom moo di vote Amadou Ba ca bureau numéro 8 di remercier également Lalla Rasoul Wele bi ngi teewaloon moom it ca Mermoz jotoon ñu également baaxee vote ki nga xamante ni moom moo di Anta Ngom Missane également également nekk foofee ca Ziguinchor jot nga na moom it vote ku mel ni Guy Marius Sonko ak ñeneen Waly John moom également nekkoon ñu foofee ca Kaffrine ba jàpp euh, Kaolack euh, ki nga xamante ni euh, moom moo di Makhtar Cissé je pense que Makhtar Abdou moom moo ngi nekkal ci Bassirou fay Faye Ndiaganiao jotuñu déggante ak moom mais certainement Djibi Sarr bu ñëwee dina déggante ak moom ak ñeneen ki suñu ay reporter ñoom mbay Gningue et autres ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci actu wax ni nag bu leen zappé dañuy suivre li nga xamante ni moom moo di actualité bi tout di ngeen ci ànd ak Djiby Sarr Dione d'ici là portez-vous bien jërëjëf te ñor du ma di 17 mooy 5 minutes laa fa nekk. ma xiif. caa dara koor gi tey sax na waa